am nar ci mom ay yiw la ndax bi mu gane aduna Sëñ Tuubaa dafa yebal man Cerno boobu mhm. ma ngi jaareem mhm. ne ko demal nga jox ko autour mhm. ne ko sag dem ak sag delu ci ko fa dajal ni jéggal ko kon kuy door gane àdduna ñu di ko tudd suñu borom def ci dara jooju nga xamne ko ki yu tudde kum dajal rek ni jéggal ko wala fa tegtal kon maqaam mo ko sun borom jëla takkal gannaaw mi ngi ndaam te daara ji ndaam la nekkoon si ndaam nga xam ne njaboot suñu tubaab yëpp góor jigéen moo leen jàngal bañ wattu ak taalibé doomi taalibé mag yëpp bi mu dal suñu ndaam daal di dalal alquran jàngal na ko ab diir gannaaw ya, bi ne lañ ko yóbbu ci sëñ Birahim Njaay sëñ Birahim Njaay moo ko àggale alquran bi alquranam àggee it dafa daal dem gedde sëñ Mbàkke xam-xam lu bari donc ñu wax sëñ Assane bu Seyid jangal na lu bari lepp ci jangu sëñ Assane moko jangal jàngal mhm. bi dem na njaareem ci sëñ ma dem yaatal fa xam-xamam mhm. jang na ci yeneen borom yi xam-xam yi tam mhm. ndax dafa doon dafa doon ko sun bom eh, def def muy ku bëgg xam-xam euh sàkku ci bëgg su surtout xam xam sira euh sëñ ma dem lepp ci xam xam sira moko ko jangal eh, ba tax na ko déggoon sira la su ko daan waxtaanee su ma sànni waxtaanee eh, saxaaba yi da ngay jàpp ne daa bokk ci seen dañu fekk dañu fekk dafa daan benn saxaab yi day wax ba de la wax nam daakaala woon nga xam day mel ku nekk ci seen biir ko déggoon siira la xam-xam yëpp noonu la ko noonu la ko feege woon moo xam muy fiq mooy muy tasaw muy xam-xam yi nga xam yam njëriñ yëpp la mm-hmm. yi ni ginnaaw dafa jaar fi nga xam ne fi la doomi soxna yi baaxoo jaar moom sëñ Abdou Khadir muy ci sàkku xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon xam-xam farata la ci lépp jullit bu góor ak bu jigéen loolu it Serigne Touba a anhu bépp njaboot bu mas a am coono wala la tëdd moo tax Serigne Abdou Khadir sàkkoo xam-xam ci anam rafet yooyu ba am ci lu kawe njortam ni nga ko waxee mboolem xam-xam yi da cee géeju woon rawatina xam-xamu siira boobu nga xam ni bu ko daan waxtaane saaba yi day ni daa nawoon seen jëriñ ko loolu it ku xam na xam-xam moom mooy làmp bi leeral aw yoon ba nit a dëgër ci diine ba a tax lépp lu muy def ci diine mu am sukkandikukaay boobu looloo taxoon it Serigne Abdou Khadir mu mel ni ba tey buñ tuddee sunna rek daa mel ni alam la ci moom boo xam ne buñ ko tuddee rek day mel ne turama mhm. xam ku xam ku ko xam ku ne sa xel day demaat ci moom loolu it ban taxawaay la amoon ba tax maanaam mu am taxawaay boobu ci biir suñu waa dëgg la euh, lépp xam-xam bu rafet ba ndax li ko nekk no xam-xamam den noonu lay doxe mhm. te ni nga ko waxee maanaam buñ ne buñ ne woon as sunni yu rek yem ci mhm. pour ñu kenn xel xel yëpp seen doxaat lay doon ndax day lu màndarga woon nga xam ne misaal la mu kawe ci wàllu jëfi sunna mhm. man doy doy na ci taarif sunna mhm. buñ la ko xamal dañ dañ la wax na xoolal sëñ Abdou Khadre rek ba mhm. xoolee aw dox ay jëf ay jëflanteem ak dox yëpp boo xoolee loo gisee loolu mooy sunna comme buñ doon taarif sunna wax ne mooy xoolal daal jëm moom aw dox yéenam mooy sunna sun nag da koo dund ci fànnam ci ci yëf yëpp ay jëfam da koo dëppale sunna ay ay ay ay jikkoom mu dëkkale sunna Mm-hmm. ay jëflantiinam mu dëppale ko sunna mm-hmm. nga xam ne lu mu doon rek mm-hmm. ah, da koy dëppaleeg sunna bu dee ci ay jëfam la ci jut mooy nangoo liggéey xam nañ ne ah, liggéey ah, wàccuwaay bu dëgër la am ci biir lislaam rawatina ci sunna ndax sun boom moo njëkk a wax ne su ngeen ndax ndax xam nga daana sam daana samp ay ay dëkk daana sanc ay dëkk lu mel ne waxtaan ak ustaas yi ci gën a siiw dëkk ya da ko sañc ngeen ñaar yëf ba ci ñëk moy tarbiya mbolam bi ko yàlla booleel def ñom di ko yar yalla ci jaamu yalla ak yalla yalla mm-hmm. waaye sañ na ko itam man fa faggu lu lew ci fa ci bay mm-hmm. euh sun doon fa waxone sa saa bu ngeen jaamote yalla ba noppi mm-hmm. na ngeen dem liggey fa ida as-salatu fa fantashur fi wa wabtaxu min fadlillah sa bu ngeen julete ba noppi tasaaroo len ci kasu sakku ji yalla yun si seen waxoon na ne kenn ci yéen lekkul lu gën ci moom lum liggéey ci loxol boppam dan yonte yàlla daawuda day da daa ci lum liggéey ci loxo boppam maa akala ta taaman xattu min an euh, yaakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaan yaakul min amali yadihi aw kama xaala sallallahu kon xam gi xam ne kon liggéey sunna la tax na mu goroon ay àll mhm. yóbbu fa ay ndonga di leen tërbiye mhm. ci ci ci jaam yàlla ak liggéey waaye di leen di leen di liggéeyloo mhm. ngir mën a fàggu lu lew loo xam ne ca lay mën a sukkandiku ngir mën a dëggal ak jaam yàllam ngir jëfi sunna euh, la ca topp ci nu mu jëfee na ci wàllug liggéey mooy li ñu tuddee xidma te mooy liggéey yàlla yàlla tey balaa ñu àgg ci loolu ñu xam ne dafa am baat boo xam ne ñu bari dañ ci jum ci déggin muy mm-hmm. li ñu tudd tawakkul mm-hmm. tawakkul ñu bari dañoo jàpp ne wakilu ci yàlla mooy yaa caaral toog doo def dara mm-hmm. jàpp ne yàlla yàlla jox ñëpp suñ tubaan déedéet loolu tawakkul mooy euh, na ngay nangoo kër kër yi liggéey bu baax a baax te gëm nag liggéey bi mayu la yàllaay maye waaye yàlla ci boppam moo digle ñu kër kër yi ngeen mën a fàggu lu lew te suñu baa doon waalam benn kas la la yona fii tawakkul ala yàlla laa tafta illaa fi na nga xam ne kat fàggu wala sabablu dàqonte wut ak wakkirlu xas bu ko min tawakkul ni an la tara mujur yi risqi si wax si waa rabbil doy na sëkk ci tawakkul nga dégg ne rek mooy eh, gëm ne yàllaay maye yàlla mooy wërsëg moo la koy jox waaye nag yàlla lu muy def lu nekk ci sawul la ko jaarale mm-hmm. waaye gëm-gëm ba rek mooy mooy tawakkul waaye moo digle day yëngatu mm-hmm. dax ne waaye nag bàyyee bàyyee fàggu bàyyee kër kër nangoo yëngatu ba noppi nag mm-hmm. di xool ñay yëngatu di leen ñee ak di leen di xool di di di di di xemem ci lañ yor suñu ak ndof la fatarku kas bi li baax tawakkuli ma altifaatin fi lu gumrin injali kon loolu mata baye xel la hmm. kon moy lëkkali digan sare ak haqiqa hmm. te ñun sans ne woon at tawakkul hali hmm. wal iktisaabu sunnati fa man an sunnati fa laysa minni newoon na man day lu moy sama mbir waye nak keur keur yi nangoo liggéey na sama sunna te ko sip sama sunna boko juma man na mas naa am ay sahabi yi ñu ko wax ni ko ñom day ñu bax lañ ñom day dañoo beru di jaamu yalla rek ci dal ci moom ma gën a ci koor ci moom day naafila day jul rek ñu sax ne wa ko leen di dundal ñu ne ko ñun ñëpp mu ne yéen a ko gën mhm. ndax yéen a ngi jaam yàlla ba di liggéey di leen dimbale mhm. kon lisaan dafa bëgg kon mu ne man day mhm. damay julli di noppalu di woor mm-hmm. di dog loolu mooy sama sun tëkku sama sama sun bokk ji mu mel ni comme sëñ Abdou Khadre dund dafa dafa dund ko waxee mooy liggéey mm-hmm. waaye it Sëriñ Tuubaa ku ko xam xam xam ci moom ni mm-hmm. liggéey maanaam yoonu murid bu ko doon tënk ci ay baat wolof dañ naan la jaamu yàlla ak liggéey ci baat yi gàtt ñu ko mën bokk na ci ñu ko xàmmee mooy liggéey ci ñàkk jëriñ maanaam jëriñoo sa ñàkk loolu it mën nañ koo dugal ci sunna bi nga wax mooy loolu nga xam ne moom la sëñ Xaadir bàyyi woon ba tax fu mu toll li mm-hmm. nga xamee ne moom la ñu yàlla yëpp baaxoo def ñu sañc ay dëkk di ci bayeka dundale mm-hmm. mu mu taxaw ci di ko def mm-hmm. naaw bi lii nga xam ni moom mooy taxawaay bii mu amoon ci jumaa ji maanaam yan yan yan yan taxawaay lañ ci mën a nemmiku maanaam ñu ci man a jàpp yoo xam ne moo taxaw mu taxaw waaw loolu nañ ci xamee ak farloom ak doy gu mu doyon ci fànnu l'islam ak maandoog sell la ñu seen ci seen ci julit ci amul Fadel xam nga ne mo agale juma ji ci loxol bopam mbàgg mu diko jital bopam ba bayiko fi bayiko ci sa saa Cheikh khad sem Cheikh mi ngan moko wutu ci sala da tan tànn Cheikh khad Khadre ko muy imam يسبح لله ما وبه بعث العلوم وأسلم وأتباعه ويعطيه الزكي ويعلم الكتاب ويقرص ويطهر من قبله الصلاة وآخر منهم ما أثقله عشش الحكيم تبدي إلى إن غير الرشاد تبدي أن يكون تعملون أيها الإسلام والإسلام والإسلام تحياتك وآخر العين فيكون لكم مثل تعلمون إن شاء الله الصلاة والسلام على رسول الله رسول كثيرا هل كنت تفلحون إذا تجادل ابنهم فأغنيا تجد خير قل عند الله خير من الله يا ولا غير عاشقين الله الله أكبر من الله يحيي الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا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 يجعل جنة الله عندك العاصف الجنة الحالية لا تنزل يا إنجاني لا صوم وقات ولا صوم وقات ولا يكون في بطن وسعيد بسوته ولا يسعي إلا بطن خلقت والسماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت وسكر إنما أنت مسكر لست عليم بسوته إلا من تولى وقرأ ناصرنا مباركنا من أجلنا حجابهم ومن علينا حجابهم الله الله أكبر يا الله الله What? muy koo xam ne dafa doon ko teel ndax Sëñ Abdou Khadre bu ñu ko tuddee sa xel dem ci julli mm-hmm. wax na ba mu nekkee ci kër sëñ Mbàkke di jàng xam-xam mm-hmm. sëñ Mbàkke bu so mm-hmm. daawu sëlmul mukk ci jàkka ji gestu di gisu ko nga ba muy tàmbali fonk jàkka ak julli ba waa xale ba tu tànk la wax na ay atam néew na doon di ko dund itam dund ko ñëpp xam xam gi mu xam ni mu dunde sunna ak ni ko jaam yàlla ñore moo tax mu tànn ko def ko imaam jël lépp din teg ko ci loxoom waaye mu am ca farlu goo xam ne ci moom laa mas ko musta am na ayib jumaa ji na ko ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne ñeenti ajjuma wala ñett la ci mas a manqué da ko fekk dem bayt laal xaram ngir joxe fa tay ajam jàkk ci ci biir këram musta am na ayib waxtu juróom yëpp mu ko daa julli boppam fu mu dem itam musta jullee ci loolu jàkk te xam nga ne jàkk yén saas ne na la salat li jali masjid ila fil masjid ki julleewul ci jakka ba dekk ak jakka amul julli dan lañ ko dégg moy julli ga ma tut tax na fu ma sa dekk fu nek jakka la fi jëk def ci dekkam yëpp ngan yim da gane ji tam di dem de caalib Saalum Kajoor Bawal fu nek mu defa daa fa gane ji fu ma sa a gane ji tam fu mu nekk jàkkale yi kon xam gi ñu xam lool na mo tax na farlu googu mu moo tax ma seen te it julli julli maanaam dafa doon tënk ba xaajal jëmm la yoo xam ne daal lépp luy des da ngay fekk mu dund ko ba jeex tàkk xam ne jikko ju rafet wala jikko ju ab jullit am buñ la ko buñ la ko waxee nga dégg ko boo gisee suñu ba xaajal gis ko ci moom ñu ci wàllu liggéey ñu ci wàllu dundal sunna amu dug ci bi liggey bo walu julli ak xora ñeneen yeen yu mel lo xamni jamu yalla day tek dal ci jikko yan kaddu mo kaddu yi nga xamni wa waaw li ñu koy rek moy ñu xol gannaaw jamu yalla gi li gën fess ci aw moy dimbalé ta yalla mo yàlla ma moy liggey bi ñu ta yalla képp tax dafa ko ci fës saa yu mosaan xey kërëm ordonnance yi ñooy rang ordonnance bu ko waay indil dana ko jënd eh, ñi wuti dépasse wan nga xam ne ñaa ñaata ngénte la doon ngénte ñaata cër la doon da lay seetal da lay jëlal soxna def la ca war lépp ci cër gi ndawtal la nga am doom mu jox la la ca war def lépp ñëw ci doom bi ma ne kon jëf te yàlla tax mu doon ko ci ràññ ko koo xam ne eh, kon li dénk mbokk julli yëpp rek mooy ñu bàyyi ko xel xam ne la ca soxla mooy eh, xool aw doxinam nga jëm ko roy di tegtal ne borom xam-xam la itam téere bii moo ko bind xirsul muslimin te daawaati wa taawudaati muqaddasin mooy kaaraangel jullit ñi ci ay ñaan ak i wattandikukaay ñeel ñi way wattandiku ñi nga xam ne xeeti ñaan yu nekk def na ko a yéemu ci ak mayam mooy ci biir mi ngi wax ne yàlla ilham na ma ne mimma alhamdulillah xam nga loolu wax ju rëy la lima ma ilham nangam ak nangam nangam kon naa ñu xam bu am solo boo xam ñaani musu ñaani ko musu ci arab la nag arab la kon dana ko fexe am ngir ngir mën ko jàpp koy ñaan suñu borom dolli ko ay leer te sëñ Seex mi ko fi nekkal hmm. yàlla dëgëral ko moom njaboot seen baxarat gépp hmm. ak taalibe yi bàyyi àggale seen yéen ci moom barke seen hmm. ci wàllu jëflante dafa ba kum Nah, daw seen dimbal ci kan waaye mom moy fexe bay bay dimbalé ta yalla tax lolou xam ngeen xam dimension mi am ci l'islam ndax dimbalé mo la sun doon tuddé al ihsan ci alquran te mhm. ya, suñu doon wax inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba mhm. ya, fay diglé man maandu da fay diglé ihsan itam man moy ko jëflentel nga mhm. jox ko xakam ba ma sëkk ta bañ ko tooñ lu new new so akamaté nga bañ ca yam dolli ko ci leneen lu dul xàqam la nga koy dolli te du xàqam na loolu moo lañ tuddee ñu tuddee ihsaan suñu borom dig na ay yu màgg ñax ñoo koy def lilladina ahsanu lxusna wa ziyada wala yarxaqu wujuhum xatrun wala dilla ulaika ashabul jant hum fiha xaalidun sun borom ne ñi nga xam ne dañuy jëfal yàlla ci ay jaamam yàlla dig na leen aljann ak leneen lu raw aljanna loolu aljanna mooy taw la gi suñu borom tawféex la wan leen jëmu njàkkal moo xam ne gis yàlla moo dax moo dax aljanna nu ñuy weddi yàlla ngi daa jëf ne ñaar suñu tiit ak a jàq ba seen xar kanam di ñëkk ñoom du jabokk ndax ñu àjjan lañu tàbb lañu tàbb lañu sax ba faaw loolu Sëriñ Tuubaa di wax ne wa xiila in xadara yawmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaabul xumma naada munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruuna lil janaani musrain bi an yuqaala lahum mudul janna bi gayri fitnatin gayri mihna nen ëlëk bis bañ ci suñu jëlé sirat gatché ko ci kaw jahannama ba ñëpp ma si jax ñëpp ma si tiit dana am aji yéena ji war ci kaw ne ana ñi daa ana ñi daa liggéey julli ñi ta yalla tax su nekk ñogi ngi nii mu ne yéen moom fitna yeek jafe-jafe yeek tiit yeek yëpp bokku leen ci dem leen tabal àjjana léegi nga xam ñoo la suñu bon ni njëkk jukki tàbbi àjjana laataa muy yatt mm-hmm. kon dafa tegtal kon liggéey julli ñu am sol la mo tax seen baxaar da sonu ci nango dimbalé ngir yalla yàlla eh, dimbalé julli ñi ak bàyyi xel te te sunna la sunna la insaan wax ne alxalqu ayaalullaahi wa ahabuhum ilallaahi anfaahum li ayaalihi bindeef yi njaboot ak sun borom lañ ki ci gënal yàlla na mooy ki ci ëppal njariñ njabootam gi waxaat feneen ne sayidul xawmi xaadimuhum nit mbooloo mu nekk ka nangoo féete di leen dimbale di leen taxaw kooku may seenu sang ak xadis bi wax ne al yadul xayrun wa ahabu ilallaah min yadi loxo bi féete kaw di joxe moo gën fuuf te moo gënal yàlla loxo bi féete suuf di nangu kon xam ngeen xam ne kon dimbalee te yàlla tax sunna la moo tax mu féete woon doon dimbalee nga xam ne ku ma ci ñëw kenn mu sa ñëw ci moom dimbal eh, sàkku ndimbal tax laa jóg ba noppi nga sooy ku ñëw rek daal taxaw waaye itam mënutoon gantalee dëkkam ni doon dimbalee ña ñëw tey jàmbur dafa fekk mu taxaw waa këram ci fànn yeb ba nopi tax mhm. ko fonkon ak njabot la nga xamne haq yakot njabot yeb dafa la taxawee mhm. rasuluna nabiyuna muhammadun abdu rasul yaxtamaru samadun hama rusibu bi amanatin tusib lo bi tablighin ilayna kasib yaxudu man xiyanatan أيام خدمتي لقاء هما يخود من خيانة وكما حرم خدمتي لقاء هما محمد بشر من له الخدم كرزه مخدما كن ساخدا محمد بشر من له فدا كرسه مخدما شاهدا